déet yow bu la am dara looy ragal yaa ngi dégg ay nit ñoo lay posé question ay nit ñoo lay laaj jàppal sa cent franc ñoom ñu ngi si yoon di ñëw journaliste ñu si yoon di ñëw jàppal sa cent franc bu la am complexe yaa ngi dégg mets-toi à l'aise yaa mets-toi à l'aise léegi on va essayer bu la laajee question na nga leen déglu eh, boo leen déglu ba pare wóoruma. bul wax loo xam ne xamoo ko wala loo xam fële bul wax leen mu utu yaa ngi dégg léegi boo nuyoo ba pare maa ngi nuyu yi kenn ku sa tur ak sa sant yaa ngi dégg nga masawu toroxlu yooyu la nga koy def su ko defee Sénégalais yi xam ne yow am na loo xam ne ci yow la jógee tamit lu ñu la wax ci yow la jógee léegi premier attaque bi mooy. wàcce sa kanam wàcce sa kanam buñ la tegee caméra yi wàcce sa kanam yërëmtul yërëmtul xool xool xool ba nga may xool xool da mel ne ku yërëmtu ku am problème sooy wax ba si yàgg am na beneen saa rek sëgal bu la laajee gañal boo mënee jooy sa jooyal soo mënee jooy sa jooyal parce que Sénégalais ñun ñëpp xamante nañu lu métti kenn mooy métti ñëpp on va essayer nga ne. waaw loolaa ko fa essayé Sonko daf ma violé loolaa jee Sonko daf ma violé boo ñu commencé salaamaaleykum maa ngi wax nit ñi di jégalu waxal di baal àq ñëpp ma ngi sigi nag xool caméra parce que caméra dañuy ñëw waaw météo à si da nga mel ne ku rey nit te reyoo laa def yow nañ tooñ yow nañ tooñ sénégalais yi ñi ci gaañu yëpp. déedéet déedéet ay xamoon dafay kii neen nag maa ngi jégalu ñëpp di tiislu li am bu ma sañoon su ma xamoon nii lay demee duñ ci ay du yem ci bopp borom waxal loolu fi am yëpp maa ngi siy tiislu ndax ay moom. yëngal sa kanam yëngal sa kanam yëngal di. du yem ci bopp borom yëngal kanam gi da ngay kanam gi nii nga def léegi. ay fixel du yem ci bopp borom. wax dëgg yàlla bàyyi sa loxo. sa loxo mbaa jeeku waaw allez yépp li fi jot am metti na ma torop waaye di leen allez gañal waaye gañal gañal gën a gañ yi gañal waaye gañal boo gañul mais man gañ bi moom duma ko mën de waaw doo mën a gañ foo ko gañ parce que Sénégal yi dama lay xam gañal yow yaa nekk yow yow li am yaa ngi sa dëgg loolu moo am mais loolu si nëbb gañal gañal waaye maître. jàngal. waaw dara eh, dama ni nii ngay jàkkaarloo ñoom ñoom dañuy tegal caméra. léegi soo ko mënoo sax sagal wax sigi gañ na sag sigi gañ na. gañ waaw waxal bi dama koy def. waaw da ngay sëgg. waaw. li il mu bindal la ko parce que sinon dafa bëri nag. waaw il faut ñu bindal la ko. waaw bindu ko. waaw léegi mais concentré ñoom ñu ñëw léegi nee ñu ngi ci yoon di ñëw. bu la dagee caméra yi. Mhm. da ngay mel ne kuy xool caméra ba am ne doo xool. dëgg la gañal gañalaat boo gañal dañu la jéppi. métti di baaxul. métti bi ah si non retaan baax na retaanal da ngay soulager. bàyyi sa loxo bàyyi sa loxo météo à l'aise ah bàyyi sa loxo waaw léegi bàyyi sa loxo lu mel ni ku mu daaj nii bàyyi sa loxo. tey de dama ne la dégg nga xoolal caméra yi gañal sa gël sa gi gañ sa gël sa gël gañal sëgal sigil gañal bu ma la bu ma la stressé bàyyi ko bàyyi kul nii bàyyi kul waaw bàyyi kul waaye tamit xale yaa ngi ñëw xale yaa ngi internet yi ñëw. métti daaw métti. waaw xam naa loolu mais métti waa à l'aise. yaa xam xam yaa ngi ci dëgg. Sonko yaa nekk ci dëgg. mais gañal. nag yéen a gañal force ko. Mm-hmm. ah sa roba dafa jeex. waaye nag Sonko moom. lii mu wax bu dee ni moom violé wu ma na ko waat. <laughs> yaay ñëw yaay ñëw. waaw <laughs> na ko waat tuumal ko tuumal ko. na ko waat ndaxte moom chaque jour defuma ko benn yoon defuma ko ñaari yoon benn jour la ñëw. munoo ko compter li mu la ko def munoo ko compter. ma diw ko huile bi mu pare diw ma eh, ko. bu dugg foofu bu dugg foofu foofu baaxul bu dugg foofu bu dugg foofu foofu baaxul bu dugg ci ay huile neel rek. Mm. li mu ma ko def munuma ko compter. waa li ma ko def bëri na de mënu ma ko compter. fii ngay sëg di xool boo fekkee da nga réer gis nga tegal naa lépp. Mhm. mais ne mets-toi nekk si dëgg da la yore dëgg taa njaay loolu moo am li ma wax moo am ko Sénégal yi léegi koy dramatiser. yoramal sa kanam bul ko nañ bàyyi ko bàyyi ko bàyyi nii ah toogal la ah, dama ne ma la toogal bàyyeekul léegi gañal gañ na gañ na deux gañ na ko defee trois gañ na quatrième bi nga sëgg benn gañ ñaari gañño ñetti gañño ayca sénégalais yi sénégalais yi soo gaññee rek sénégalais yi damay jéggulu rek ndax man dama am famille gañña gañña am ay mbokk attaque gañal gañal gañal eh, eh, gaññ mooy maanaam nga sa garam am na loo metti na de. xoolal nii dañu naan xoolal defal nii des nga xaw ko génne. Mhm. bu la ñëpp xaamee na parce que mënu la kot defal nii génne génne tuuti def nii génne tuuti def nii léegi gañal gañal sigil gañal sagal jógal jógal jógal. metti li metti na de jógal man la boo dem bay génn. Mhm. ci génn bi nag moom ñooy génnee. Mhm. génnal ne am na loo xam ne sax mënu ma ko wax. am na loo xam ne sax man mënu ma ko wax. damay bàyyi ba procès ba. damay bàyyi ba projet ba. la nga ba projet ba projet ba. ba projet ba. ba projet ba. ba projet ba. la nga la nga gañ nag fii mooy gañ bu ma jigéen a gañal am na loo xam ne mënu ma ko am na loo xam ne mënu ma ko waaye projet bi ma ko xool xool xool ma am na loo xam ne mënuñu ko waaye waaye projet ma mel ne ku soj. ku aj ay ku aj ay ñebe ak ma mel ne ku soj waaye am na loo xam ne mënu ko waaye waaye projet ba. may bàyyi projet ba. gañ ni ah yow sa kanam nag ku fas doro bàyyi ko mu yaa ko bàyyi bàyyi. la la laa euh. wax gañal. am na wax dëgg mënu ma ko wax. mënu ma ko wax. may bàyyi procès ba ma wax ko. may bàyyi procès ba wax ko. am na loo xam ne bu waatee ma retiré plainte bi. ah. bu waatee ma retiré plainte bi. waaw yow del génn sa loxo yi dee ko dee fii ala dama il faut nga marqué actuellement actuellement amul yooyu actuel fii. corona waxatuñ ko suuf ah li xew xam na ko yàlla xam nga ko léegi yooyu amul a changé gañal gañal. na waat Sonko bu mënee bu mës bu waatee ne mësuma tëdde bàyyi sa loxo aji gañal waay gañal gañal man yow guma la maître li dafa triste waa mais dama amul loo xam ne yow man yërëmu guma la defal gañal waaw topp ci. am na xam ne. am na xam ne. am na xam ne. moo ko Sénégalais yi. moo ko Sénégalais yi. am na xam ne. moo xam ne Sonko def na ko moo ko Sénégalais yi. li ma Sonko def. li ma Sonko def. li ma Sonko def. li ma Sonko def. li ma Sonko def. gañ bul jooy da ngay gañ ne gañ ne eh, da gañ bul jooy boo génnee rongoñ leen rongoñ seytaane commentaire leen rongoñ seytaane gañal tudd yàlla la ilaha illallah. tudd yàlla da ngay tudd yàlla. waaw la ilaha illallah. waaw kay sa ñi gaañu ko yàlla. déedéet bu loolu foofu du ko lal ñi gaañu yàlla yàlla xaraa foofu loolu parce que ñaar la. ñi gaañu yàlla na leen naa ñëpp. gañal wàccal gañ ne wàccal ajal gañ ajal gañ gi wàccal ko waaw waroon naa kay naa nekk jigéen gañal sagal mm. sigil mm. gañal mm. sagal sigil gañal sagal sigil gañal <laughs>